up in the morning time. Nico dille jox good vibes. Ndekki lu neex tàng jër. Sud FM mooy naa. Sénégal man la bay di bi bu bees yaa ngi ci émission ndekki lii ak maam Nicolas Imam Maodo Faye jërëjëf mu ngook 98.5 le choix de la différence Sud FM la première radio ñi nga xam ne yéen a nekk Dakar Thiès Kaolack Mbacké Matam Ziguinchor Louga Saint-Louis Kolda Diourbel Tamba Kédougou fépp ci Sénégal ñu ngi leen di béggee bu baax a baax baax à travers nos stations régionales mais également vous qui êtes sur le digital et qui nous suivez en direct sur YouTube Facebook ak euh, suñu leen di nuyu di leen béggee di leen ziar ak di amati mbégte bu a baax amee suba su ne bu ñu xëyee àndandoo ak yéen seen émission ndekki yi jaa ngeen jëfati merci beaucoup comment ça va chez vous écoutez ça va très bien chez nous merci beaucoup la preuve euh, je suis ak Mbacké Sylla ak oustaz Maodo Faye ñi nga xam ne ñooy seeni soppe di leen gunge suba su ne damay tàmbaleeg oustaz Maodo fay oustaz maa ngi lay nuyu di la bëggee di la ziar di amati mbégte noo def ak suba si. waaw sant yàlla baax a baax di la nuyu di nuyu Mbacké di nuyu itam mbokk yi nga xam ne jamono bii nu euh, toll. ñu ngi ñuy dékk ay nopp daal ngir taxeeru bu baax a baax. jërëjëf kookoy oustaz Maodo fay Serigne Mbacke si la bismillah salaamaaleykum. jërëjëf Nicolas waaleykum salaam wa rahmatullah maa ngi lay fay nuyoo di nuyu sëñ Maodo. Euh, bëgg laa toppandoo ci ni nga koy waxee comment ça va chez vous. waaw euh, ça va très bien chez noonu la. c'est que ma euh, kii tamit il faut mu jàpp ci il faut que jàpp ci oustaz. waaw mais moom fa su ma yéenee jàppale. day day toog bu soxlaa xam yenn kii yi tamit oustaz. Ah. il faut aider. non non yooyu comme da ngay reew. yooyu ci ah. dara de. moom bëgg na kañ wax na ko kañ. waaw jàppale waaye nee na wut ardoise dégg loolu xoolal ardoise waaw yu ndaw yooyu oustaz nag wax nga lu yàgg ardoise <laughs> xanaa dañ koy fuñ koy ban crée lañ koy jox foofu. <laughs> ak gurdu yooyu gurdu ndox yooyu. <laughs> Maodo Ardo dem jàng. ak gurdu yooyu jox xale yi. wallaay ndeysaan. <laughs> kii bi éponge bu ndaw ba ñu daan def ci kii bi. waaw éponge yooyu quoi dama ñaari crée boole ci. loolu loolu mi ngi am ba def ko ci rooroo bi noonu rek. kii këpp këpp yooyu mi ngi am ba léegi. yooyu yooyu mi ngi am. mi ngi euh, bu euh, kii bu ñu ko joxee ardoise ak crée ak éponge. ak gourde gourde bi lu ñu ciy def. tuuti ndox rek pour mu mën naan. ah ndox ay ah, yooyu tam. saa bi duñ ci def ay jus yu neex yooyu. noonu ñu daan kii lañ ko ñu koy jëndal biscuit xam nga bool bool la. <laughs> wala gerte gerte gu ah, ñuul gerte gu ñuul buuse bu sew bii. sax <laughs> sax sax waaw yooyu nga may jox ma yóbbaale. <laughs> exactement onze heures et quinze minutes euh, gis ngeen de suma suma gars yi donc euh, Mbacke Sylla ak Maodo Faye. semaine bii moom eh, soo gars dañoo jubóo. Ah, waaw macha allah ah. te man jubóo boobu ngeen jubóo arrangé wu ma. <laughs> parce que man il faut que muy tàng. pour que man Mbacke nag neexut a eh, Mbacke bu rab yi génnee da lay. fal quand même <laughs> <laughs> quand nag et puis nag Mbacke Mbacke am na ma waxoon ci yow. lu waxati. kii Mbacke. Hmm. Hmm. defal introduction foofu ma ñëw. waaw ah, d'accord ngi koy déyante ah. <laughs> non lii nag xam nga kenn mosu koo gis ñett nit na ci studio ñaar ñi déyante bàyyi kenn ci <laughs> xam nga man yii moo ma arrangé. waaye li mu wax sax garaawul de waaye. garaawul de ah déedéet de. <laughs> Ah waaw waaye nee après après di nga ma ko wax ah. ah dama solo xam nga saa daa bëgg ruube rek. waaw man bi ñëwee di la déy laa xam ne xamul li muy def ndax ñun ñaar ñooy daje. di couloir yi nee na nee na kenn di yow doo ba mu yàgg ma ne doo dara. foofu moom duma fa àgg. waaw <laughs> ah, ñaar yëpp nga yaa ko wax. yii boobu boobu mënuma fa àgg <laughs> sañu ma ko sax. <laughs> <laughs> mais daa bëgg ma riposte waaye ah. gaaw. <laughs> non baal naa ko baal naa ko. bëggee di amati mbégte bu baax a baax euh, euh, mbokki auditeurs yeeg mbokki internautes yi. justement internautes yi ñu joxante dig daje en direct ci YouTube bu ngeen duggee sunu chaîne Sud FM seen rajo daa ngeen ñu fa fekk en direct si la ak Maodo fay seeni soppe ma ci profité ni nuyu euh, site internet yi nga xam ne ñu ngi ñoo topp saa sune bu ci mel ni Sénégal waa Sénégal nga xam ne. ñoom Bamba topp seen i soppe lañu ñoom Bamba ak compagnie ñu ngi leen di bëggee def na naa kii bi euh, seen chaîne YouTube bi. Mm-hmm. ñoom itam ñu ngi ciy topp bu baax a baax ñu ngi leen di bëggee bu baax euh, li ñu tàmbalee tey euh, mooy une Sud Quotidien. une Sud Quotidien tey dafa ñëw ci élection locale yi nga xam ne boobook léegi ñu ngi koy coow ah Antoine Diome moo nekk ci une bi ak arbitrage bi nga xam ne nee nañ moom la def. par rapport ak élection locale yi di ñëw euh, coow li bëri na déjà te te ak see guñu yi xam naa ne euh, jombul euh, fin de semaine bi ni ñu koy defee saa su ne daanu fi dalal koo xam ne danañu waxtaanee loolu muy kilifa ak i kàngam wante une sur quotidien bi am na leneen lu ma ci intéressé mooy transport de voyageurs. ci mhm. une bi sur quotidien dafa wax ne njaganjaay yi njaganjaay benn mhm. dañ koy retirer de la circulation at bi mhm. maanaam njaganjaay dootul am Hmm. dootul existe hmm. euh, yàgg nañ ko wax nag. Hmm. ñu koy euh, dandal ak di ko delloo. Euh, dafa mel ni daal affaire bi léegi c'est confirmé puisque Thierno Birahim Aw. di directeur conseil exécutif des transport urbains de Dakar muy CETUD. Euh, am na waxtaan mu ngi ci waxtaan ak waa Sud Quotidien tey mhm. expliquer lan moo waral euh, Ndiaga Ndiaye dañ koy retiré Ndiaga Ndiaye nag bu ñu fàttali ko def naa euh, turu kii njëkk doon transporteur la muy nekkoon année 70 année 80 ci lañu mhm. fi introduire woon Ndiaga Ndiaye wante Thierno Birahim Aw moomee mu ngi expliquer ne Ndiaga sax ci boppam nekkul woon véhicule bu ñu destiné au transport de voyageurs à la base léegi nag oustaz Ndiaga Ndiaye dañ koy retirer de la circulation fii ak euh, fin d'année. Hmm? lan la ci oustaz Maodo Faye ak Serigne Mbacké la li mhm. gis mhm. ci ci ci gëneel mhm. jërëjëf jërëjëf Nicolas euh, xam naa li nga ubbee lépp am na solo li nga laal ni itam daa nekk tomb bi nga xam ne moom day xasen ndax léeg bu ñu taxawee ci ay élection taxaw ci ay campagne ak ay yu baree bari léeg mu sori li nga xam ne moom la ñuy dund euh, bis bu yàlla sàkk ñuy xëy di ci di ko jànkoonteel ba ngoon jot li nga tudd laal wàllu transport euh, rawatina nag dem ak dikk bi ci biir dëkk bi Eh, nga xamante ne yaa ngi tudd Njaga Njaay mm, nga xamante ne góor gu baax la woon gu nekk Pikine bi mu nelawee yàggut hmm. xam naa ci ñaari at lay toll man hmm. dem naa ñaari yoon seeti ko ah. eh, ndax déggum déggoon ci émission bi yeeg waxtaanu fajar yi woote woon ne dañoo bëgg a gis ba ñuy dem sax fekk nañ mu nekk mag ba lu baree bari xamatu ko hmm. waaye teewut boo demee gis ne eh, loolu daa bokk ci li réew mi am ndax bawal bawal bu góorgóorlu ci liggéey nekk ci oto di ci sonn ba fa oto bi ñu tudde la ko daanaka Njaga Njaay bu doon daw Mali Côte d'Ivoire ak yëpp boo moytuwul ñu fàtte sax Mercedes ma ko defaroon ak jàmbaar la léegi nag loolu nag li muy tegtale mooy daa am fu ñu tolloon hmm. dañ faa war a jóge jàll feneen hmm. eh, ñun ci wàllu transport xeetu oto yi ñu ci yor dafa am yoo xamante ne nii dëppoo wutati ak jamono ndax oto yi yàggaay bu mu yàgg hmm. léeg-léeg itam ak euh, li ko taxoon a jóg bokkut ak ñun liñ koy doyee waaye ñàkk pexe pexe la woon léegi nag toll nañ foo xamante ne gannaaw ñu ngi wax ay autoroute mm. euh, di wax ay TER di wax ay BRT di wax nangam mm. noonu la war a ñëwaate ci transport bi mm. li ma ciy tiitloo nag mooy tataay yi daw ci dëkk bi bi muy door a ñëw dañoo waxoon ne car rapide yi dafiy jógee waaye boo xoolee tataay yeeg car rapide yi kiif kiif wala car rapide yi tane tataay yi ndax dugg car rapide sax léegi xaw tuuti kon mu ëpp sécurité dugg tataa ndax tataa yi la fa dugg ba muy lang tataa bi pant ba mel ne lu paralysé wute naa ne xamul ni muy communiquer ak yow plante bi euh, ne la teeyal léegi tata moom demeewut noonu mm. boo jëlee nag lu mel ne Njaga Njaay wala nga jël sept place yi mm. wala nga jël tey taxi yi ci biir dëkk bi mm. euh, wala système transport boobu benn vide bu ci am ba pare xaw a ñàkk ay kilifa yu ci taxaw moo tax mu am désordre désordre boobu mooy man su ma bëggoon a dem Jurbel léegi sama téléphone bii damay daal di xool benn numéro am ko ma woo laaj ko ndax da ngay dem jurubel mu ne noo man dem ma wooteel numéro sàngam mooy war gaynde yi ñuy wax wala alu Dakar yi mhm. wala alu taxi yi nga woo ko mu ñëw jël si la sa kër jàpp naa ne transport bi war nañ koo gën a gën a mën a dooleel ci lu mel noonu ba nga xam ne day am ay privé Maodo Faye mën a jënd juróom benn fukki biisam yoo xamante ne biis yu am qualité lay doon yu nangam lay doon am gaaraasam fu mu dëkk nga xam ne ku bëgg a dem ca parcelle foofa ngay dem dugg fa waaye tey waaye tey complication yi ñu am ñun ci transport dëppoowut ak ñun li ñu dund mm. maanaam tey man suñ ñama woon boo marisé rek laa war a jële oto mm. ma jëm Diourbel war a jógee Scat Urbam dem boo maraicher bu ma jëlee taxi boo moytul ma fay ko ma ma fay ko 2500 mm. temps bi may moo gën a temps bi may def diggante Diourbel ak boo maraicher mm. léegi nga àggaat fekk fa oto boo xamante ne nii amul benn sécurité boo toogee sax bu saw 100 doon dem ci tali bi bu doon taw nga tooy boo moytuwut chauffeur bi day taqalee fiil mu door a tàkk wala dañ koy puus mu door a tàkk mm. day mujj yàgg jël oto boo xam ne légalut ci transport dëppoowut ak transport bi ñu tëral da lay gën a yomb nga dëppoo ak moom loolu nag li muy tegtale mooy ñàkk ay kilifa ministère de transport transport damaa xamul moom lan mooy liggéeyam bañ ko amee léegi ndax su fekkente ne transport bi théorie la rek toog def ay séminaire toog di coow digganteem ak transporteurs yi mm. eh, xaw a soree ñoom itam ñu am ay syndicat bu ñuy coowee fii jaar fii ñiy coow jaar fii régler problème boobu day jafe dañoo war a toog diglu askan wi defal leen li leen arrangé Mbacké nag yaa ngi laaj laaj bu am solo mm-hmm. euh, boo laajee loolu ci ministère des transports xam na ñi ñi ñu koy laaj ci ministre dina dina bëri ndax ñu bëri tamit euh, domaine yu bëri dañuy faral di laajte mhm. ministre bi ñu fal ci poste bi seen ministre lu mu leen di jëriñ lu muy jëriñ mhm. euh, oustaz euh, bu ngeen fi jëlee Ndiaga Ndiaye kii car rapide Mbacke nee na bi ñuy indi kii tata yi foogoon nañ ne amélioration taxoon wante amélioration amagul ak tata yi ba pare ngeen ne da ngeen fiy jëlee Ndiaga Ndiaye waaw xam nga xam nga lenn lu nekk bu amee ci ci am réew ci wàll xam nga transport dafa transversal dafa laal sécurité laal tamit wàllu mobilité maanaam dafa laal wàllu kaaraange ak wàllu gaawal dem boo amee soxla. Hmm. waaye lii nga liir nii c'est la première fois moom Sénégal. Hmm, hmm. waaw Famara Ibrahima Sagna au temps na woon dañu fiy jëlee car rapide yi est-ce que car rapide yi dem nañ ba léegi. <laughs> sas tamit yaa ngi ma bëgg a wax loo bëgg a wax foofu. non dama laa bëgg wax ne gars yi dañuy wax rek. te man sama xel a ngi daloon ba ma jàpp ne dañuy changé. oto yi ah. xam nga bu fekkente ne état continuité la. Ah. kon Macky Sall bi muy fal waru fi woon a fekk car Hmm. waaw ci ci ci yoon bu dee logique pour logique dañuy liggéey rek di avancer di dem di topp logique gu état bu ñëwee beneen tegu ca hmm. dama ne je donne le nom Ibrahima Sagna am na ay jamono yoo xam ne moom ci boppam hmm. jiite woon na fi genre Sénat ne bi au temps de Abdou Diouf dafa ne car rapide dina leen fii jëlee euh, te ba léegi car rapide ngi waaye ñu ngi mel ay ci beneen bi ci tegu mooy <laughs> léegi ci wàllu marché Sandaga eh. foofu noonu am na ay temps yoo xam ne yi eh. am na ay décret yoo xam ne préfet yi wala gouverneur dañ ko doon jël ñu naan guro camion yu mag yi hmm. bu ñu acceeti bu bu bu rombati foofu nañ fay dikk rek guddi léeg-léeg xam nga hmm. ay timis nga gis leen ñu gaare foofu ak ak heures ak 6 heures amul contrôle c'est-à-dire que ñun li ñu li ñu dal mooy dañuy fàtte soit hmm. dañuy fàtte histoire te lii li nekk présent tam duñ ko mën a maîtriser à 100 mm. pour cent mm. beneen bi ci def gis nga tata yi ngay wax ni mm. c'est pratiquement privé kenn ku liggéey ba ngoon sa nga ko yóbbu uh-huh. ah, waaw gaa yi tata yi gouvernement bi daanaka defalu leen dara ah. defalu leen dara daf leen a bàyyi ak seen bopp tata yi ngay gis ak aftu yëpp ku ci liggéey sa bopp ngay liggéey la ku ci paan yaay defar sa oto état bi xanaa bu dee lam leen di jox ak kas néew ci subvention Covid bee taxoon te bàyyi na ko. léegi euh, euh, ci internet bi. nga baal ma oustaz ñu ngi am na ñuy laajte justement tata yooyee ak njaga njaayee car rapide yi yu ca gën wala bu ca xam nga oto moom ba mooy ba a bon état te loolu ku la ko mën a wax mooy ki nga xam ne dafa def defar visite technique. Hmm. bu fekkee dañuy déglu dañuy wax techniquement. Hmm. oto bi def visite technique te bu fekkee amul benn nuxum amul neexal hmm. ñu ne oto bii day mën naa daw waaye léeg gis oto boo xam ne bi ab sareet koy hmm. Hmm. <laughs> mu nekk di kar kar kar kar oto daanaka yow oto bi doo xam à la limite lu muy nuru léegi nag su fekkente ne léegi dañoo nekk ci réew boo xam ne bi nekk ci benn capitale bu tudd Dakar fii ci Afrique de l'Ouest ngay dem ci kër capital bi nga xam ne tey jii foofu euh, touristes yi bu ñëwee dañu war a wax ne Dakar dafa rafet hmm. nga fekk fa oto boo xam bi da daw ba mu yàgg ci nawet bi oto bi dugg ci ndox mi chauffeur bi sax chauffeur bi sax mooy gën a màggat oto bi hmm. léegi ce qui fait yow à la limite naan doo xam ba xam hmm. bi dem le exemple mais lii ñu wax ni njëkkuñu ko nag te nag xoolal lii slogan la de verbe rek la dañ ko fi xaaral kañ la fi ndeg njaay jóge na ce que am nañ courage volonté publique bi jëlee leen fi. Ah. affaire yi c'est des c'est des poudrage sous. kon affaire yi mën na nekk coow nii rek. Euh, pëndal mais euh, au fond ce n'est pas si simple que ça. loolu nga may wax gis nga bu ko doon def. waaw xam nga lii lii ko ko ci journal bi. déggagun nga benn réunion bu ñu fi defagul ak ñoom presse bi jot ci hmm. déggagun nga ministère bi ñu dénk transport mu def ay communiqué ne jour tel dinaa woo chauffeur yi transport yi wax ak ñoom dañoo jékki-jékki rek li a ba même bu ñu ko confirmé communication bi ni hmm. ba ak Samba ca kaw ñooy daje waxtaan léegi nañ dem ba ca kanam hmm. njëkk njaay yi fii lu leen fii jëlee baax na oustaz da nga jàpp euh, ce n'est pas si évident dafa am yu nekk non man pour man pour man wax ji yomb na waaye la def ji mooy jafe ji nan dem nag ba ca def ja Mm-hmm. Mbacke oustaz nee na yom yombeewul noonu. dëgg la li mu wax kay euh, euh, defe naa ne mën naa koo partager ak moom. Euh, ndax ni mu waxee ne du tey lañ ko njëkk a wax. Mm. daa bari yoo xam ne ñun bu ñu ko waxee day neex. Mm. waaye xam naa daal dañ koy wax waaye dox jëm ci jafe na. Mm. xumalu xew nag ndax seen diggante ak transport maanaam transport diggante transporteurs yi. ak ak gouvernement léeg-léeg am na yoo xamante ne nii dana fiy xew. ay sew-sew yoo xam ne booy déglu lu mel ne sax kaaraange yoon wala nga déglu yenn yenn position wu transporteurs yi mm. da ngay xam ne diggante boobu am na dese naa dese naa ratax ni mu war a rataxe ci wàllu àndandoo di yëkkateendoo di dóorandoo waaye dama naan li ma waxoon léegi laay waxaat loolu mooy njariñul kon li taxoon état yëg ne transport dafa am solo ba mutal ko am ministère mm. léegi ndax loolu lu ñuy tëwëri rek la di fayee ko xam nga responsabilité dafa ànd euh, maanaam ay ay ay ay privilège yoo xam dañ la koo jagle dafa ànd ak ay nañ li mu war a am lépp mu di ko am mm. li mu war a defal askan wi da leen koo war a defalaat muy dellu si ci ñoom ba ñu di ko gis mm. ñoom war nañoo am nañ ay technicien mm. li ñu wax nii yëpp ñun dañ koy jéem a wax nii rek ku mel ne man li may wax xawuma ci lu bari li ma dund rek laa ciy nettali mhm. parce que koo xam ne da yàgg orelu ba léegi may dugg orel mhm. di yeewu 3 heures de matin di dem buntu kër sëñ Mbàkke Madina fii ci xaar yàlla di dugg ci orel bi di dem jaaree ma ko ñëw di jógee fii dem ba di di jëli orel bi dama koy tudd noonu bañ xam ne orel yi ña koy dawal xam nañ ma xam ko dundee noonu yi noonu yi noonu yi ko doon dundee ñun noonu lañ koy waxee ñun léegi nag ñi toog ne ñoom xam nañ ci lu dul jeex mm. doon ñu leen yëfu réew mi hmm. doon dooni transporteur di ci gagné seen xaalis hmm. ñooñu ñoo am nag sasu war ñoo donc war ñoo dimbali nag ci situation yi ñu dund après benn ngi boo xam ne dañ koy reproché lu bëree bëri moo xam Ndiaga Ndiaye car rapide ak euh, tata yeeg yooyu accident yi accident yi ci tali bi ñu euh, lu bëree bëri dañ leen koy ji ñoom laak du ñoom bon voilà waaw xam nga xam nga xam nga accident day nekk dafa bu ñu ko tuddee accident rek hmm. xam nga loo xam ne si accidentel man day ñëw momentanément wala très rarement mu ñëw mais su nekkee nag lu récurrent luy ñëw di ñëwaat kon war nañoo xool lan moo tax accident yi di am mais baat bi moom étymologiquement du woon signifier loolu hmm. loo xam ne dafa ñëw accidentellement mooy loo xam ne léeg-léeg rek nga dégg ñu ne am na hmm. léegi nag bu demee bay répété wu di répété wu nañu xool ñetti ñetti élément hmm. bu njëkk bi mooy état des routes route bi ci boppam ndax ni ñu ko defaree baax na wala déet benn mm-hmm. ñaareel bi tamit oto bi daw ci kaw route bi ndax oto boobu ci boppam foofu ñu ko fekk noonu war na faa daw mm-hmm. beneen bi ci tamit responsabilité humaine maanaam nit ki nga xam ne a mm-hmm. kii par exemple bu fanam guddee ba guddi ci ñaar fukki at la toll amul jabar amul doom amul kër nga jox ko lu mel ne benn njaganjaay mu mel ne jëm màggalu Tuuba wala gàmmu Tiwaawan day fërërër yi dem rek du du nelaw yu demee noonu. léegi nag il appartient au gouvernement. maintenant de de revoir tout ça mu tapé sur la table jël ay mesures yoo xam ne yi parce que permis à point yi ñu fi wax ak permis biométrique yëpp. daan yi rarement ngay dégg mu am te bu amee jëyee di am ba pare ñu doog a daan jaadu woon na tey ministre bi ñu dénk wàllu wala ministère bi ñu dénk wàllu transport chaque jours mu def ay séminaire ak chauffeur si toog ak ñoom wax ak ñoom même bu doon sax forum lay doon bu yaatu boo xam ne daf leen di woo ci centre Abdou Diouf bële ne leen lii ak lii ak lii bu 15 jot jotee table un mois wala deux mois yu nekk mm-hmm. ñu orienté leen sensibiliser leen mm-hmm. et que police également ronde yi muy def ñu koy gën a yokk ci axe yi nga xamee ne mm-hmm. dafa nekk yu yu yu accident mën a a gaawee yooyu yëpp nag liggéeyu gouvernement bi la du liggéeyu askan bi parce que waaw oustaz da nga tudd sànq ne euh, ndaw ñi nga xam ne dañu leen di faral di jox euh, ñu nekk transporteur mais mooy responsabilité humaine mooy responsabilité mais bari nañ ay mag yoo xam ne tamit da nga leen di gis ñuy mm-hmm. def transport mm-hmm. oui da naan mais ñi toll nañ as boo xam ne tamit quand même euh, nag waaw mais foofu nag la foofu nag Sénégal nag dafa naqaree lijjanti ne woon naa la réew mi hmm. dafa am bant la boo xam ne boo hmm. ko hmm. a a amul doo mën a doo mën a laaj suffrage pour ñu fal la war nañoo wut tamit ay at yoo xam ne tam boo fa tollee waratoo mën a jiite réew mi at yoo xam ne ko rombee mënatoo nekk député hmm. at yoo xam ne boo ko rombee mënatoo dawal oto temps oto temps oto nag service des mines ak gouvernement bi ñoom ñoo war a jël seen ay responsabilité hmm. ñaax askan wi responsabilité yi ma wax léegi hmm. route yeeg chauffeur beeg euh, ñi ñiy def visite technique yëpp ñu boole leen jël ay dogal yoo xam ne dañuy tàmbali di nangu permis yoo xam ne bu ñu ko nangoo tey boo defee yenn jëy yi définitivement territoire national bi dootu fi dawal oto mu jeex tàkk suñ ko doon mm. def nii bu yàggee mm. ñu ah sa waay gars nañ permis di kooku de yàqu na wu kooku dootu laalati volant mm-hmm. suñ ko defoon tey un an deux ans nga gars yi léegi tàmbali discipliné wu mm. mais comme c'est de laisser faire bon voilà maintenant après euh, euh, Mbacké nan nan ngeen di def aussi euh, yenn oto xeetu oto yoo xam ne dañuy nekk ci tali bi nga mu romb la mu wóor na la ne yow lii c'est c'est inadmissible mu daw mm-hmm, mm-hmm. am ay nit yu am fitu dugg ci boobu oto nga xam ne mhm. normalement warta daw mhm. oto boobee romb ay euh, nax lañ koy waxee euh, eh. homme de tenue mhm. yoo xam ne wóor na leen ne non seulement oto bi warul daw ba pare am na ay nit yu nekk ci biir te war waruñu ca nekk dëgg la loolooy tax accident yi di metti xam nga accident mënoon naa am léeg-léeg am te la ca faatu manoon na cee bañ a faatu bu fekkonte ne oto ba mel na ni mu war a mel mm. waaye léeg-léeg màggataayu oto yi mooy tax bu oto bi daloon ci ab welo dong boo ñëwee dangay ngay fekk moom moxoñoo ba nekk benn dànk mm. ndax oto bi ci boppam moo màggat màggataay bu mel noonu léegi nag yooyu yëpp li koy jur damaa jàpp ne euh, ci ñun la su ko bañoon a wax wala muy wala du waxi rajo dama naan ñàkk yar ñàkk yaru nit ñu xamadi ñoo xamante ne nii seen i jikko day feeñ ci ni ñuy doxee mm. xam nga ñun ni ñuy doxee ci mbedd mi rek noonu la ñuy dawalee suñu oto yi ni ñi tuure suñ mbalit mi ci mbedd mi noonu lañu ñuy dawale suñ oto yi dafa fekk ne nag booy dox nag danger bi mën naa tuuti waaye bu dee oto nga yor boo juumee accident bi day feeñ te fis lii firndeel loolu boo seetloo accident yu yu méttee métti yuy am route yi muy amee du route yu bon yi ci route yu baax yi lay amee day am ci autoroute yi day am ci voie yi ñu defar ba mu baax parce que foofu vitesse yi ñu fay daw mën naa jéggi dayoo beneen bi ci des tam kii dawal yëgul responsabilité yi mu yor damay faral di wax ne ab ab ab ab dong bu waroon a benn malade boo moytu dana concentré wu fexe ba teewlu yëg responsabilité yi muy bëgg a def xam ne ki muy dagg biiram bi wala ki muy opéré kooku ci diggante dund ak dee léegi nag sëfoor bi war a yëg ci ab biis war koo dawal lu man ñeen fukki nit war a dugg ci biis bi ñoo ñëpp seen i bakkan nekk ci sa loxo kooku ban responsabilité la war a yëg ne moom la moom la war a am ndax daa war a doon koo xamante ni day foyee li muy dawal kanam biis bi nekku nekk yooyu nga xam ne ci kanam photo photo sëriñam a ngi ci photo jabaram a ngi euh, a a ngi affaire ma ngi ci photo mbëru làmba ma ngi ci ba nga xamante ne li muy gis fi muy dawal boo muy tuuti lay doon mu nekk ci beneen monde boo xamante ne nii kii dawal kooku te yàlla xam na ne bu doon dawal ba nga ne ko defal ndànk hmm. wala teggil sa tànk yow rëccu nga ko maanaam keroog moom ñay maanaam ñay dawal ñëpp mën nañoo faatu hmm. loolu mooy benn côté bi waaye dangaa wax loolu ndaw ñi mag hmm. bi rek boo génnoon gis circulation ba ne tëj boo demoon ca ka ko bu wàccee veeram nga tiit mag mu ne lës lay doon akub sikkim wala koo xamante ne ma ngay incarné ak responsabilité te kooku mooy jalgati li fi nekk moo tax nag yooyu ñuy def ñun ñun ñun li tax ñu mën a dund dawal oto ba àgg fa nga jëm te gisoo accident looloo lay jaaxal finalement loolu mooy xéewalu yàlla mais normalement saa yu ne da war a dégg accident bu metti ndax lii tax accident ñi ngi koy def ci tali nest pas euh, euh, finalement kon euh, oustaz li Mbàkke bëgg a wax foofu mooy même bu ñu joxoon tamit yu bees yu baax yu tous ce que tout ce qu'on peut lépp lu ñu bëgg mais nit ki tamit euh, civisme ak ak yu ni mel euh, da ci da ci bu boobaa la accident yi ëpp waaw moo tax ma waxoon léegi ne moo tax moo waxoon léegi ne responsabilité de l'homme aussi parfois rek ci ne humaine bi dafa ci amaale xam nga gouvernement bi dafa amoon benn programme man xamul tax defuñu ko dañu waxoon ne dañuy def renouvellement de parc automobile yi yeesalaat ko yu bëree bëri waaye yéen mën ngeen maa wañil ñaata lañ ci yeesal ñoom ñoo ko waxoon di am si seen programme la bokk de renouvellement parc oto yi dugg ak yi génn c'est vrai que am na âge yoo xam ne oto a dugg biir Sénégal maintenant ci oto yoo xam ne normalement waratuñoo daw ci ci ci biir Sénégal léegi nag euh, tey bu lépp bu fekkonte ne lépp baaxoon na tamit ki koy dawal hmm. nanga mais na lépp baax ba pare ñu door a xool boobu hmm. waaw na hmm. lépp boobu élément boobu nga wax ah. na lépp baax ba pare ñu ah. xool léegi luy ñëw Mm. comme lépp baaxagul mënuñu non euh, c'est-à-dire lépp baax sax damaa jàpp ne da cee bokkaale tàggataale nit ñi maanaam tey boo jëlee tey société bu mel ne Dakar dem dikk wala ñi nga xamante ne nii ay transport yu mel noonu néew na looy gis Euh, seeni dawalkat def yoo xamante ne nii da nga naan euh, lu jéggi dayoo la noonu maanaam seeni accident moo gën a néew parce que dañ leen di tàggat noonu itam la war a exiger transporteur bi mu tàggat ñi muy amal te ñuy wax ak ñoom moom laa wax léegi moo hmm? hmm. doon hmm. tijji léegi comme nii gis naa fi benn commentaire euh, puisque ñu ngi en direct ci YouTube bi ma fàttali ko mbokk yi Diagne Falla la tudd nee Bonjour Nico, Oustaz Maodo Faye et Mbacké. Le problème, c'est au niveau des humains. Si on change les cars rapides ou Ndiaga Ndiaye et ce sont les mêmes personnes qui vont conduire les véhicules mooy li ñuy wax ni maanaam bu fekkee soppi nañ lépp te mu nekk les mêmes personnes ñooy conduire euh, te amuñu woon peut-être civisme bi ngeen di tudd ak yu mel Euh, dara du sotti mais mm. bu keroogee itam bu fekkee ne am na lu ko jiitu bu nu soppi loolu itam mm. nit ñi duñ leen mën a soppi comme ay oto mais mm. bu mm-hmm. mm-hmm. mm-hmm. ñu ci accompagné daan di récupérer ay oto xam nga fu li ñaan wax fourrière la xawma hmm. oto police normalement oto yoo xam ne bu leen jàppee oto xam nga nu ñu war a def hmm. xam nga ni ñuy taalee yàmbaaj yi yóbbu ba ci àll ba taal noonu la ñu waroon def oto yi yeneen oto yi dañ daara sax dañ koy dugal ci géej gi di jën yi di kii waaw parce que tamit affaire bi mais tamit euh, oustaz nga baal ma mais tamit euh, xam nga c'est un fait aussi euh, ciblé wuñu kenn pointé wuñu kenn du doigt mais c'est un fait boo xam ne dund nañ ko gis nañ ko dañ koy dund ba tey oto boo xam ne sànq wax naa ko warta daw ñu leer na ne mu ngi daw te warta daw yëpp ay nit mu ñu ñu arrêté ko boroom oto bi wàcce dem lijjanti li muy lijjanti ak ki ngeen xam ne moom la lijjantil ñëw taalaat oto dem euh, tegaat ko ci tali donc loolu la loolu loolu lañ tuddee corruption loolu corruption la corruption passive la xam nga mm. xam nga ñépp ci am responsabilité xam nga foofu sanction mënu fa am waaw voilà ndax doo gis ah. xam nga problème bi mooy man am na oto yoo xam ni tey jii dugg ci xarula boo ñëwee ah. yor sa baas bu ne la ci dugg mm-hmm. na la ko mm-hmm. jaral même bu dal mm-hmm. na fay yendu parce que lu ne mën naa am te oto yoo xam ne maanaam lépp weñ la xam nga oto sax léegi daanaka nekkatuñu ay weñ ndax daanaka ay kii lañ ci def rek ay mm-hmm. yoo xam ne daanaka bu kiyee sax du am mm-hmm. même na yoo xam ne bu mm-hmm. bi eh, gis nga accident bi amoon bi amoon ci jamono yële ñu génn wax ma bu ne woon Kaolack am na beneen bu amaatoon 14 personnes xaw ma boobu noonu gouvernement bi occasion la woon ñu jëloon ko saisir ko pour mën a taper fort mais dañoo nelaw dañoo bàyyi mu jàll Euh, euh, lépp day dellu ci autorité bi li ñuy wax nii maanaam sanction yi hmm. faaw mënta mënta ñàkk waaye ni ñu koy defee la ñu war a xoolaat kon léegi man ñu jàpp ma ñu jàpp ma waa ji ñëw waa ji ñëw may waxtaan ak moom naan ko yow séeréer nga de fay nga sant mu naan la yow koy sa waay sa ñaawaay bii nangam ngeen nga xam ne yéen da ngeen a mel ku nekk marché Sandaga di waxaale da ngay lijjanti ba dem ñun dama koy faral di wax boo boo génnee réew mi fuu rek mm. dangay gis ne ña fa nekk ñun ak ñoom yam gënuñ ñoo yaru wala sax ñun ñu gën leen a yaru mm. ndax yu baree bari waaye teg leen ay daan yu metti te gisuñu ki leen koy teg mm. da a yóbbe ak nite da leen a yóbbee ay daan te mm. gis ki leen koy teg mm. boo demee tey fu mel ne Amérique ànd naag sama benn xarit ñu ne ci télé bi dañoo génn rek ma ne ko comme dañoo yàkkamti tee ngaa tee ngaa daw mu ne la fii loo tourné ñu mm. da ngay xool que ne ñoom li ñu sàmmoon sàmmonteel mooy boo dawee accès de vitesse li lay daan moom yow baye bon foo mën ne ci kirikoro da nga ci jot te dana ñëw li ma bëgg a wax foofu rek mooy euh, maanaam maanaam sanction tege ay daan euh, maanaam corruption moo baaxut day day yàq aw xeet day day alag nit bari na ku alkaati jàpp tey mu war a fay mille francs joxe 1000 francs gis nga 1000 francs yooyu rey na ko moom reyaale askan wépp mm-hmm. reyaale alkaati bi mu ko jox te yëgu ko nañ ma baal mm-hmm. léegi yooyu li mu li muy li muy tegtal rek mooy mooy euh, xam naa nag euh, maanaam takk ndeer moom mënta jub kerug borom euh, mënta jub jëmmi borom ci boppam ñun suñuy kilifa comme ñun ñooy séenum takk ndeer mënuñoo gën a jub hmm. corruption bi dafa ca kaw hmm. wàcc di wàcc di wàcc ba ci suuf kenn ku ne foo taxaw ay maccaat ngay xool ak loo fa mën a for léegi loolu dañuy yóbbee nag nit ay jafe bañ mucc ci loolu corruption bi ca kaw la jógee tey jii tey ñu la waxee tey ne la ab tëli dañ koy defar bu nee bi nanga ma koy defar boo ñëwee bu nekkoon boo waroon a nekk ñaari voie boo moytuut benn lay doon bu tëli bi waroon a yaatu boo moytu day xat hmm. bu tere toile bi bu ñu ko waroon def mu am nangami centimètre boo moytu dootu ko def la ko waral mooy la génn war a dem ci tëli ba daa génn ci ay këyit aku tur waaye demul ci suuf si mi ngi ci poosi gaa yi mi ngi ci koofur yi te dañuy dee bàyyi ko fi kon oustaz yi ngay bi Mbàkke di wax ci kaw lay jóge mais <laughs> saa foofu foofu sanction mënu fa am waa xam nga loolu loolu loolu mën na nekk gaa hmm. c'est-à-dire que xam nga un chef d'état hmm. boo nekkee un président de la république hmm. yow tu es au-dessus de la mêlée. Hmm. yow maanaam li concerné nit ñi yow da ngaa nekk ci seen kaw. Hmm. yow yaay woo ki nga xam ne jox nga ko ne ko lii laay def lii laa bëgg defal ma lii wala su ma deful lii lii mooy am. Hmm. yaay def ay décret moom yàlla may na ko tey mu jël xalimaam ne tey. bu kenn du fi defee nangam. mais yooyu nag il faut nga am courage bi. nit ki booy jiite. ndax yàlla du du du teg fenn kenn. te nit que loola matewu ko. da gis ne président suñu président amul courage. Euh, non non non j'ai hmm. <laughs> waxuma ne amul. courage damay a li ma bëgg wax moom mooy. faaw booy omelette da toj nen nag. maanaam non euh, euh, non man am naa courage bu poser question. waaw mais man man tamit am naa courage yu ne loolu waxuma ko. non suñuy njiit amuñu courage bu ñu amoon courage rek la lii bu yàgg. courage su rek la ko xam nañ ko ni nga ko xamee mais ah. takk sa ndigg ak sa sentir ba tege ay daan lañ dul def ñi ñu fal sax teguñu leen daan ba di ko tekki ci tali bi waaw xam nga xam nga bi may wax dama ne njiitu réew mi moom moo am pouvoir u a def yenn yi loolu nag pour mu mën a nekk il faut que moom ci boppam mu armé wu courage mm. léegi nag moo xam ci ban courage lay armé mm. ak yan moyen lay def ba def loolu le mm. ministère yi nga xam ne ñoo ko mm-hmm. na benn ministère am na benn rafetlu naa liggéeyam ci benn affaire. Hmm. ndax daf cee teg ay daan. Hmm. taxaw ci moom. mooy ministre bi ñu dénk wàllu environnement ba mu ne perméable dina fi jógee. Hmm. perméable yu ñuul yooyu. Ah. xaw ma jeex na am di waay waay. non non kooku moo ngi ñu rek moom ñëpp yem Maodo environnement bi lan suñu environnement bu jaxasoo bii nga xamante nit ñaa ngi dagg garab yi nit ñaa ngi def nangam nga wax ay perméable perméable la perméable boo ko nga xam nga problème bi fan la nekk dama ne waxuma ne cent pour cent réussir lépp mais am na lu mu réussir daf bu duggee ci suuf si du seey. loolu technicien yëpp wax nañ ko. Mm-hmm. te day yàq tamit matière organique yi nga xam dafa nekk ci suuf si. ñu ne dafa lànk rek ministre bi nag dafa defoon benn benn benn benn benn benn kii. ba léegi perméable yaa benn benn benn benn benn dafa commu genre décret quoi bon loolu laa ko mën mm-hmm. léegi mu ñëw ne. Euh, léegi li may def mooy mbuusu perméable bu ko am na defal ah, ndànk rek ah, foofu laa jëm gis nga tey boo demee gàmmu Tiwaawan wala nga dem màggal Touba muy sokka si muy yëpp te lépp ay démembrement la mën naa ko duppee noonu mbuus yi nga xam ne moo superpayable ak ay ay ay këyit lañ ko remplacé ñooñu dañuy publicité ci bis yooyu dafa dafa ndànk rek loolu ay publicité la xanal ba tàqal ko rek la ñuy néew na léegi looy dem ci benn boutique fekk fa ñu jaay la ba pare def ko ci perméable. Mm. presque ay bu dee 100 pour cent. Mm. dama naan 99 pour cent yi. ci boobu moom réussir nañu ci lu ñu koy def. Euh, ay kayit lañ ko def wala ci ah. yeneen wala ci ay kopp wala yu demee noonu. Ah, mais bu yàgg lu baree bari ci perméable la daan doon waxuma ne si on a résolu tous les problèmes mën ñoo résoudre problème. même transport bett mi ngi def ay donc ñun tamit euh, yenn décision yi aussi dafay dépendre aussi lu bëree bëri bëri ci réew yu mag yi seen i euh, décision yi ñuy jël seen i réew ñun tamit ñu ñu topp mais justement loolu loolu noonu non très bien xam nga li nga wax léegi nii parce que am na dogal yoo xam ni par exemple comme léegi changement climatique yi nga xam ne moo am même bu dee day jóge ci kaw mais réew mu nekk nag yow yaay yow yaay mhm. xool yaay protège climatique ni nga koy kii par exemple mer géej gi par exemple tey jii am na lu ñuy tuddee repos biologique am na mhm. jamono yoo xam ne tey dañuy am mbir yoo xam ne dañ naan partie bi bu fi kenn napp comme Mauritanie da koy def mhm. après jën yi dañuy jékki jurante loolu kenn ku nekk yow yaay aar sa am réew mais quand am na ay ministères yoo xam ne yu dogal yi nga xam ne ñu ngi koy jël am na ay pas yi muy def xëy na nag daanu dafa dajul suuf mais yooyu bu ñu ko doon def transport bi nag moom d'accord am na ay jéego yoo xam ne ko def mais transport yi ci nekk nekkul ci environnement bi. Mhm. parce que environnement mën nga ne lii la mais transport dafa am chauffeur. Mhm. am tëli am naa ministère boo xam ne nangam nangam. li fi indi ministère boobu ak ay jëfam. Euh, loolu comparaison la ci li ñuy wax. waaw xam nga yow xamagoo verbe bu comparé moo tax xam nga. Mhm. Euh, loolu nga yaakaar rek non non loolu moom du comparé loolu nga yaakaar non non comparaison n'est pas raison mais moom man sax dama comparé comparé mooy gam-gam la waaw gam-gam la woo non non non damaa dama ne rek gis naa benn ministère waaw léegi boo ko dugalee su ma ne woon su ma ne woon non non su ma ne woon kay def na 10 kii def na 10 loolu mooy non loolu euh, loolu ministère boobu loolu su déggee la ci côté boobu rek ñoo intéressé wul puisque ñun ñu ngi yoon voilà mais quand même waaw li ko li ko fi indi kay laa xamul mais parce que parce que pour wax ne am na effort yu waaye mais kii mi ngi def effort moom non non non non léegi may leen ma tuuti puisque ñu ngi yoon ci transport bi mbokk yi internautes yi ñuy déglu tey loolu bu ñu ko defoon tey ni ñu defee ci fi ba léegi bu ñu ko defoon ci la accident yi gën a bari 80 pour cent yi dana dem boo ma joxee 100 francs ma jënd la la ko perméable yaa ngi ne xus euh, euh, ci dëkk euh, la tudd na Nicolas mais car rapide yi am na fi solo ça nous maanaam aussi bu ñu fàtte ne aussi bu ñu waxee car rapide njaga njaay et cetera et cetera bu ñu fàtte ne aussi am na ñu bëree bëri ci population bi yoo xam ne yooyu arrangé na leen léegi hmm. bu ñu leen fi jëlee itam lan lañ leen di tegal est-ce que dangeen ngeen ñuy wax ne euh, euh, bus BRT. non non BRT lan BRT moom dawagut BRT moom. xam nga xam nga lan mooy xam nga xam nga un état. Mm. dafa am ci ay ay ay ay forme ay normes yu muy demee. Mm. gis nga ñoom tey bu ñu ko doon def dañuy def dañuy def étude bi ba xam nag lii bu ñu ko defee lan moo ci war a tegu gis nga boo demee pa ma jox la benn exemple bu gën a simple. Mm. aujourd'hui su na woon léegi euh, par exemple ah, ñu ne car rapide yëpp léegi ci banlieue bi la ñuy daw. ku jóge Kër Massar wala Tivaouane Pël léegi boo bëggee dem Parcelles Assainies mhm. wala Patte d'Oie foofu la yam léegi mais képp ku jëm ci banlieue bi léegi transport boobu yépp su dee car rapide foofu la yem mhm. Géejawaay ci la bokk Parcelles ci la bokk ba ba ngay dem ñàgg mhm. ci la bokk ñun oto yépp foofu la ñu léegi ñu ne nag léegi oto yi nga xam ne par ay particulier lañu ay 4x4 par exemple ci Patte d'Oie mën nañu tàmbalee léegi ki nga xam Hmm. xëy na li koy desee fii ak Dakar wala Colobane dootul bareeti moo tax man la ñoom gouvernement bi du ay dof xam nañ buñ ko doon def tey du ñàkk xëy na ñoom ay étude d' kon euh, loolu leer na on on ose l' espérer jërëjëf oustaz Maodo Faye ñu nekk en direct ndekki li émission nandité yi ngeen ñuy déglu suñu ay euh, réseau euh, synchronisé ak également ci digital bi am na solo ñu doon waxtaanee noonu kon njagandaay yi njaganjaay yi nga xam ne bokk na ci li nga xam ne moom la Sud Quotidien xëyee tey ci unam ne les njaganjaay seront retirés de la circulation avant la fin de l' année oustaz Maodo Faye nee na dégg nañ ko fi déggati ko fi donc euh, est-ce que ça va faire ou pas dinañ xool ba xam loolee lépp fu muy mujjee ak wàllu transport ak yu ni yéen ñi ñu topp ci. Euh, YouTube c'est-à-dire dans 4 mois. dans 4 mois a priori normalement dinañ fi jëlee Ndiaga Ndiaye. ah loolu la ñu wax ah, ah dans 4 mois dans 4 ah, xaarati leen. <laughs> waaw xam naa lu ne dig nañ ñu ko de. ba xam fu ñuy mujjee. waaw lu ne dig euh, laata ñuy dem puisqu'il nous rest quelques minutes. Euh, beneen sujet bu ma bëggoon ñu waxtaanee te ñu bëri interpellé ma ci rawatina ci whatsapp bi euh, bëggoon ci am gis-gisu oustaz Maodo Faye ak Serigne Mbacke Sylla Mbacke. Mm. Euh, jamono yi weesu am na lu fi xewoon jur coow torop torop torop torop torop ñu naan ko phénomène ku ku kunkande. kunkande waaw. léegi bu gannaaw bi ñu jàllee comédie beeg reetaan lu geeg kii bu ñu jéemee sérieux un tout petit ci sujet bu ni mel. Euh, ñu bëri ñu ngi laajte euh, sénégalais naka lañ koy qualifier tey. Mm. bu fekkee ne benn Cheikh Chérifou mën na fëlee fële ah def fi def fi événement def fi actualité pendant des jours occupé euh, ñu bëri. benn kunkande fële fu ko neex def fi lu ko neex ba pare jël ay dëbësam daal dee dem maanaam occupé sénégalais yu bëri ci ay futilité bu boobaa nit yi di laajte suñuy xel finalement lan la ñuy jëriñ. Mm, waaw am na solo de xam nga. mbiru Kounkandé de moom sax su ma amoon saw euh, maanaam sago dëgg sax. Hmm. moom dama koy dama koy tëb waaw mais li nga waaw li nga wax mën nañ na cee mën nañ na cee wax. ndax euh, doxalin wi. Hmm. Euh, léeg-léeg man du ma am ak moom problème sax moom Kounkandé. Hmm. mën naa ko bañ am ak sénégalais yu bari itam ndax ñun ñu baree bari ci askan wi dañuy dañuy jëfandiku rek maanaam ay consommateur lañ. léegi liñ ñuy won rek ci loolu la ñuy wax. léegi nag bës bi mu am nga xam ne médias yi ñoo ko ñoo ko may gis naa télévision yu mag ni temps d'antenne seere ak ni mu amee solo. boo respecté sénégalais yi doo fa teg kunkande mu toog jàkkaarloog ñun nga naan ko da ngay xar géej géeg boo ko mënee fayal làmp yi ci studio beeg ah, di ñu di ñu di ñu këlëkëlee tamit yi bëgg waaw kon léegi mooy moo lay wan ne kay kon amul luñ ciy commentaire kon kay mérito nañ kunkante ñun loolu lañ bëgg télé yi invité nañ ko ñëw na wax ñu ba ci ba ci ci pandaw ga naxee mbaay hmm. bu la problème nañ dem te xam ne ñun ñu baree bari ñi jàpp ne kunkande loolu muy def moom la sénégalais yi bëgg hmm. télé yi koy def dalal ko télé yeeg kunkandeeg ñi ko may ñëpp ay kunka ay ay kunkande lañ ñoom ñëpp ay kunkande kiif kiif Euh, image su Sénégal ci lu baree bari fii wax fi lu dul dëgg ñu dem ba ca cappaandaw ja wax ja du dëgg moo nekkatul gàcca mhm. bu njëkk dinaan reyus gor mag ñi bu ñu waraan a xare ji ca guddi ga dañuy xay dañuy xas Maodo sampop xeejam ne bu subaa ca xare ba danaa def nangam ak nangam ak nangam kooku ñibbisi ci kër gi te defut la mu waxoon ci gàcce tàbbi ca teen baa ko gënal ndax dafa am dañoo am ngor am ay sidit yoo xam ne moo nekk suñu yaram léegi nag nit ñi dañuy dañuy maanaam diplomatie mooy mooy nga mën a fen nañ ma baal mooy nga mën a wax lu du dëgg mooy nga mën a maslaa mooy nga mën a wax loo gëmut te kooku mooy doon star bi tey fii ñaat nit ñoo lu du dëgg tey jii amuñu amuñu complexe dem dajeeg nit ñi te ne ci secteur yu bari nag nga baal ma wante yow boo demee ba joo xam ne ki la jiite ci boppam am na fitu téye micro ne maa waxoon waxeet xam nga loolu tamit mënoo jiiñ keneen leneen waaw léegi xam nga xam maa waxoon waxeet bokkut ak bokkut ak donte donte yooyu yëpp xam nga wax li nga wax hmm. def ko ni nga ko waxee woon loolu moom tawféexi borom bi la hmm. léegi nag wax li nga wax te naroo ko loolu jikko ju baaxul la hmm. loolu moom as gor du ko def as gor lu muy wax da koy nar ñu xam ne man na ko damaa danaa xar géej gi nag da lu nit nar da dul lu nit man nit kuy fowee xeli askan wi la et puis ñun Sénégal fi ñu toll wax dëgg yàlla nag bu ñuy xaar nit naan ko defal ñu nàngam hmm. mooy koo xamante ne lim ñuy defal dañoo amal njariñ waaye xari géej hmm. kunkaande bu xaroon géej gi ba ma ba kiri koro hmm. ñun après euh, te te te le pire dans tout ça c'est que euh, oustaz Maodo Faye non man nag vraiment kunkaande moom ñu ngi doon xaar xaru géej googee ñu bëri ñu <laughs> ngi am nañu ko doon xaar waaw waaw gëm ko ne xaru géej gi la ñuy xaar waaw xam nga dafa am lu ñuy tudde le temps pur en philosophie xam nga bu fekkee yow sa jamono bi yëpp defoo dara dangay toog di wax rek lu ñëw nga wax lu ñëw nga def alors beneen bi ci tegu mooy jeunesse bi aujourd'hui fi ñu toll ni dañoo manqué repère maanaam ñun amatuñu waaw vraiment euh, fu ñu mën a teg suñu suñu suñu repère pour hmm. mën a jaar ci loola pour mën a dem hmm. beneen bi ci mooy xam nga euh, loo gis ci àddina rek dafa am ay effet inconvénient yu positif am ay yeneen tamit yoo xam ni yu négatif la hmm. euh, euh, bon inconvénient yu négatif am yoo xam ne tam dafay positif hmm. yeneen éléments yi fële positif loolu laa bëgg a wax hmm. dafa am positif ak négatif réseaux sociaux yi dafa am ñoo xam ni par exemple dañuy dem fee yore seen benn micro bu ndaw yore seen ñaari ñaari ñaari ñaari dërëmi courant daal boo defee batterie la ñuy jënd ci yoon yu fexe rek yow ba fekk Nicolas mu toog ñu fab ko léegi ñëpp mën nañoo def seen petit télé bu ndaw daal koy sànni ci kii bi nangam am jot di ko seetaan ak ña nga xam ne ñoo fa demoon parce que man ko jëmm jooju ngeen di wax du ma turam dama ne kooku man ba mu ko waxee ca saasi rek ba mu ko waxee ca saasi li saasi saasi kooku dafa def trouble à l'ordre public trouble boobu psychologiquement dañu ko war a fekk na ko ci biir kaso bi yem ba noppi nag xool bopp bi lu ci ne parce que nag tous les fous ne sont pas à l'asile waaw les fous sont parmi nous am na koo xam ne kii mi ngi sol lu rafet di leen di war a xoolal calmer ci société bi parce que tamit ñun nekkuñu ci société boo xam ne bi par exemple lu neex Demba mu wax lu neex Samba mu wax après quelques moments gis nga dans deux mois ñu fàtte kooku nekk ah. nekk ci leneen ah. léegi nag léegi nooy def euh, euh, société boo xam ne justement nit ñi nga considéré comme ay nit ñooy fan dof yi ngay wax ne dañoo dof c'est parce que manque de repère bay tax su fekkoon ne tey ji réew mi am na benn benn benn benn repère boo xam ne bi par exemple suñu originalité ñu dellusiwaat ko xam ñu nu meloon démb ak bërki démb hmm. am ñoo xam ni orienté nañu te nangu ndigal loolee hmm. kon ana amoon ni boo jëlee ay fanweeri at ñeent fukki at juróom fukki at ci gannaaw Mm. d' accord c' est vrai que bu ma ko xëy ñu àddina bi day dox war nañoo na ko too jamono am na ci ñoo xam ne tey boo fekkoon ci bàmmeel yi yée leen na leen ndax ab sénégalais am na sañ-sañu wax li nga wedd mu weddu ko mm. te am na ci ñoo xam ne ku leen waxoon ne leen est ab xale sénégalais bu amagul fanweeri at mm. am na fitu saaga ab xalif général danaa la loolu amul Sénégal mm. bu leen fekkoon àllaaxira danaa la loolu amul mm-hmm. njaboot sëñ Touba njaboot àlaaji man wuu loolu amul mm-hmm. parce que ñoom jàpp nañ ne lu àddina dox dox dox waaw war laa tax na nga fàtte sa mm-hmm. démb ba la nga yore woon démb moom la Mbàkke di wax léegi naan mag ñi bu daan xara ji bu timisee dañuy xas maanaam daa xaatu waat la rek da ngay def nangam léegi nag jom ak ngor ak fulla ak tamit nangu tamit di umpale xam nga mhm. nit ñi dañ kumpa mhm. am na ñoo xam ne lu ne lu ne tëll ñu xool ko foofu la fi nekk waaw gis nga boo boo amee curiosité waaw curiosité débordante boo xam ne bi yow mhm. a jot parce toog toog toog dañ kumpa léegi am na ñoo xam dof nañ bu yàgg sociaux yi <laughs> Nicolas <laughs> am na gars yoo xam ne foo leen fekk ñu ngi say pum pum <laughs> non mais ak say la xeetu xeetu say la ak say la yëf yi dof la di. non nag bii mën a toogo ah. nga dëgg de nga ne nuñ koy defee. bii baa jël ko capturé ko ko ci vidéo bi très bien. kon gars nañ joxante dig daje ci vidéo yi parce que lii fi oustaz Maodo def mën a vraiment Sénégal dafa métti ci réseaux sociaux wax wax. di di di di wax noonu après ngay sonn sonn. mais mais quand question bi Mbàkke à chaque fois mooy réunir. dëgg la mooy justement jot bi euh, oustaz di wax. c'est le mais temps temps ak temps nu mu précieux wallaay wallaay mais temps bi ñuy jël ci yenn détails yi. dañ ko ah, bu weesoo phénomène bi ah, à dire que oustaz wax na ko. maanaam euh, fii ak deux weer euh, ñaari euh, mois. ñu indi leneen ñu demaat ci beneen phénomène en fait lu tax ñuy à chaque fois ñuy attardé wu ci yenn phénomène. xamuñu fu jëm xamuñu dañoo jëm. moom kay nag defe naa problème bi moom Maodo indi luñ ci solution. Mm. mooy dañoo dañ kumpa. Mm. dañ kumpa dong moo tax nit man a xaar yembar moo xamante ne nii sëñ bi ci lijjanti dundu la nekke mm. naa la danaa xaru géej nga di ko gëm xam nga ñun loolu dañ kumpa la dañ mm. kumpa dañ kumpa moom mën naa dugal ci nit lu ne mm. moo tax moom débat boobu moom nag <laughs> léegi naka la ñuy am naka la ñuy def ba ba ba ñàkk jot nag am am am am am am am itte ci yu ñu amal itte mais loolu mais euh, loolu baal ma ba ci ba ci yi ñuy waxtaane ak yi ñu information yi ñu jox nit ñi hmm. da ciy def ay jeexital hmm. nit ku ne da ngaa war a xam say priorité hmm. maanaam lan mooy li nga xam ne ci laay nekk mu amal ma njariñ ak ci li nga xam ne moom laay nekk aw ma njariñ waaw maanaam kenn ku nekk ci askan wi yaay sàkk sa ñàkk jotug bopp yow sa bopp yaay fexe yow ba am ci sa jamono ci 24 heures yi loo xam ne yow daf lay préoccupé ba doo tal leneen te kenn ku ne am nga ko nag te kenn ku ne eh, boo ko nit ñee ko négligé voilà mais kenn ku ne am nga ko même sax wala même sax si nga mbàkkee même boo ko amul sax mën nga koo jëm a créé mhm, mën ngaa fexe yow ba li ngay war a yàq ñàkk jot daal waaw ñàkk jot mën ngaa fexe ba bañ ko am waaw mhm. mën ngaa fexe ba nekk ci leneen jot gu bari moom baaxul jot gu bari moom euh, lu bari moo ci dugal nit ñi mais moo tax gis nga les pays sous-développés mm. ñoom ñoo ñoo am jotu toog di jëw mm. ñoo am jotu nekk ci deru doomu aadama yi mm. ñoo am jotu nekk ci fanaan ci réseaux sociaux yi mooy li ma wax léegi dof yoo xam ne yi daanaka boo ne woon turu jinne woo njëkkoon a woo rek ñu daal di tàmbali tëdd léegi ci suuf ndax mhm. ñoom léegi bu fekkente am na jinne ju dofloo mhm. mooy mooy mooy whatsapp ak ak nangam ak nangam mhm. ak youtube ak youtube waaw léegi nag yooyu nag ñoo ko def léegi bon léegi nag voilà il faut eh. yi ñu changé la. yàlla eh, yàlla yàlla nañu yàlla may kon ñu ñu ñu ñàkk jot n'est-ce pas. amiin ñu occupé. amiin eh, moo tax man bu ma bu ma jotee ñenn ñi kii ñu naan ma non aw ma jot wala dama dama occupé rek mu dee occupation bi lu dëggu la dama la ci encouragé bu baax a baax a baax te di ñaan saa su ne. nañuy nañuy ñàkk jot c'est important mhm. Mbacke maa ngi lay sant bu baax di la gërëm jaajëf ni ko jërëjëfati mhm. dafa def defati ngeen seen mënin <laughs> euh, yëngal ngeen euh, YouTube bi ah. xam naa ne gaa yi kontaan nañ bu baax a baax a baax euh, oustaz maa ngi lay sant bu baax di la gërëm da ngaa bëgg ma dee Mbacke tamit li nga li nga ma waxoon ci moom wala ma <laughs> bàyyi noonu wax bay ba mu bay ba mu gëm ko loo ko maa <laughs> ko li ma xalaat lépp yaa ma ko waaw waaw lépp kon nag man mi doon jéem a sax di ruubeek yooyu noonu ndekete man sax xoolal waaw dama laa libéré. waaw waaw loo xalaat rek maa ko. Maodo. jaajëf tuuti merci beaucoup mbokki auditeurs yeeg mbokki internet yi ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm. Euh, ci ànd bi ak ndekki li émission nandite yi sant ak gërëm nag sponsor yi ñoom ngeen gis noonu muy orange ak boisson punch ak ndox waalo ak tàngal bége ñoo leen di may émission bi lay suba su ne sponsor yu am solo yooyee gunge ñu tax ngeen mën di jot ci vidéo yeeg yu ni mel ci suñu plateforme digitale yi lay yu mel ni YouTube ñu ngi leen di bége bu baax a baax a baax. ndax euh, xam naa ne euh, balaa may jeexal euh, semaine bi dinaa tiktokati si la ak Maodo fey yóbbu leen ci snap encore parce que yéen a ngi ma leen laaj ci snap beeg tiktok bi danaa leen fa dugalaat jërëjëfati mbokk yi nga xam ne ñoo ñu gunge woon ci loolu loolu <laughs> waaw mooy tok tok nii <laughs> booy dañ lay tiktok léegi jaajëf à l'équipe technique merci à l'équipe digitale qui nous a accompagnés merci à vous de nous avoir suivis passez une bonne journée bon appétit n'oubliez jamais viser la lune c'est important n'est-ce pas restez sur Sud FM la première radio d'information du Sénégal et à demain salut. daal ca dëgg-dëgg mooy émission nandite yi. ndekki émission nandite yi.